Mais par contre, j'ai jamais sama patron ba ma ko waxee ne dama ëmb ba ma defee sama test. Hmm. ma ko ne dama ëmb mu ne ma kan moo la ëmbal ma ne ko Ousmane Sonko mu ne ma effectivement sama xel nii la demoon enregistrement yaa ngi sama téléphone. pen yi ci boppam dafa bari. li gën a dangereux mooy nit ñi dañuy fen ba far gëm ba far gëm seeni fen. sama patron ba ma ko waxee ne dama ëmb ba ma defee sama test. ma ko ne dama ëmb mu ne ma kan moo la ëmbal ma ne ko Ousmane Sonko mu ne ma. effectivement sama xel nii la demoon enregistrement yaa ngi sama téléphone. fen yi ci boppam dafa bari li gën a dangereux mooy nit ñi dañuy fen ba far gëm ba far gëm seeni fen <laughs>